Bienvenue sur Salam Vision. Mesdames et messieurs, vous suivez le programme de Salam Vision, une télévision au cœur du développement. Voici quelques flashs d'informations présentés par Cheikh Oussarou. C'est maintenant euh, officiel, le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, sera bien entendu par la justice ça demain mercredi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les 17 femmes du PASTEF euh, qui manifestaient euh, l'autre jour, le vendredi, devant le domicile d'Ousmane Sonko, Euh, seront euh, entendus par le procureur de la République. Madame Amsatou Sow Sidibé, la présidente du parti Carenen, demande aux autorités de libérer ces 17 femmes innocentes qui manifestaient devant le domicile d'Ousmane euh, Sonko. Ces femmes ne méritent pas la prison. Les jeunes de la paire ont décidé de s'ériger en barricade pour protester contre l'attitude de certains politiciens qui attaque euh, souvent le président euh, Macky Sall. Nous dans nos prochaines euh, éditions. Restons tenus à l'actualité nationale, ce sera demain mercredi. de vaccins seront, bien à Dakar. Euh, C'est des vaccins qui sont renforcés pour permettre aux Sénégalais de se vacciner. Hors chez nous, au Tchad, un opposant, il s'appelle Yaya sa maison a été attaquée par les forcereurs Sa maman a été tuée et son fils, euh, c'est un règlement de compte, euh, a déclaré euh, un gradé de l'armée. Yaya Dilo est candidat à la prochaine élection présidentielle au Tchad. Au Niger, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou, a été, euh, par la police. Il est accusé, euh, accusé d'insurrection euh, populaire. Mesdames et messieurs, dans une poignée de ce sera la version Wolof. mbokk yi asalaamaaleykum ñu tënk ko si kàllaama Kocc Barma ginnaaw bu ñu tekkee njiraay njiraay député kii Ousmane Sonko di jiite parti bi di Pastef nag lañ koy déglu euh, incha allah fële ca dër si kanamu euh, procureur de la république. li jëm si fukki jigéen ak juróom-ñaari xam ñu nekkoon si parti Ousmane Sonko ginnaaw bi ñu leen tegee loxo dañ doon ñaxtu ñoom dañu war a delluwaat parquet lañ leen déglu ba xam ki nga mu déglu mooy juge d'instruction. dañ leen tuumal di leen dox doxum ñaxtu li jëm si ay mbirum xibaar ndaw APR dañu fas yéene xar seen tànkatu way ngir jàppale njiitu réew mi président Sall ñu xam nag ñoom kontaan ñu lool si yenn kuje yi nga xam ne faral di attaqué di naan yi xam ne mooy seen leader le président euh, Macky Sall. dañuy doxantu fële ca bitim réew xam ngeen di Niger ki fi nekkoon président bu assemblée nationale di Amadou teg nañ ko loxo dañ ko tuumal da doon euh, pousse askan wi def ay ñaawte fële ca réew mi. ginnaaw bu ñu amee élection présidentielle jëmale ko si ñaari tur yooyu cat lañ koy tëjee xam ngeen ni benn opposant mag bu ñu wax Yaya Dillo lañu song këram moom dafa nekk candidat yi nga xam ni moom la ñuy séntu ci réewum Tchad euh, le 11 avril bii di ñëw xam mooy Tchad Idriss Déby jiite réew mi yi mooy sixième mandat ne ay tënk si kàllaama